non téléphone parce que kii day jàpp yaa xam kii bay jàpp ba may wax téléphone ma diw laa jàpp rek ñu waxtaan ba déggoo bu ñu nga yónni sa mbokk mu ñëw ma jàpp ko ma téye fasal ko jox la ko nga dem parce que dañ ñi dug dug yi nii euh, xam nga Sénégal ñoo amul ñun ay ndaw lañ xamuñu lu ñu bëri xamuñu lu bëri instant yi génn dañ ci bi ñu génn noor bi noor bi daa am sangat yow la sangoo pour am pour nga tekki li gars yi li gars yi jaawale fi toog ci bi àll bi toog nii am na garab yoo xam tey boo ci tey garab yoo xam boo ko sangoo tey ji muy noor muy nawet c'est dégg kaddu gee yee kàdd gee njàkkaar lool kaddu gee noor lay meññ nawet nawet nawet day dee nawet am benn kii nawet nawet nawet day dee day dee nawet nawet nawet am benn xob xool xool esaay ah, esaay noor gi jub nii noor gi jub nii xool esaay xool ni meññe moo tax ma ni la àdduna lépp looy def ci àdduna danga koy xam mën ko soo ko xamul mënoo ko jël ko ci dugg may la yi nga liggéey liggéey ñaan amul amul tricher de soo tricher yow yaa ngi gàllankoor sa bopp yow mais demee la ñun li liggéey mooy xam-xam la ak secret moo tax képp koo xamante ni da ñëw isaan dégg fii bëgg bëgg bëgg jëm di dimbali la soo ñëwee suñu kër incha allahu ñu jàppale la dimbali la ba la sa aajo mën a faj yaakaar nga Europe foo mën a ci àdduna koo mën a jàppale yu ne sa mbokk boo ñëw ma jàppale ko ci kàttanu yàlla incha ak mbaaxam bëggoon naa tamit ñu wax ci football kat yi hmm. bari na ay ndaw yoo xamante ne dañuy seetaan live TV hmm. dañuy football hmm. Euh, moo bëggoon a xam par exemple bu nekkoon joueur bi football que ça soit mu nekk défenseur gardien de but wala attaquant pointe ci fas lan la ci mën a am waaw xam nga footballeur football la garaaw ñu bëri football day ñu teg ci football mooy dañuy dem football nawetaan ñu leen jàpp di leen di fas di leen di di leen di leen di leen dóor jaleñ di leen di léegi nag kooku su màggee su dee ba am yenn âge day commencé am ay tawat day commencé di feebar moo tax bépp jour boo xam ne nga nga nekk jour samp sa bopp samp samp sa bopp yow personnellement ci li ngay liggéey mooy nga samp sa bopp ci li may liggéey dama ci bëgg a tekki loolu am na mais xam nga tey mën a mën a daa bëri coole bëri ba yow du xàmmee eh, ki mën ak ki mënul loolu problème bi parce que tey man tey ji boo gisee équipe nationale liggéey équipe nationale liggéey maanaam liggéey ma leen lu ko waral damaa am fulla ak fayda man am intermédiaire barke rasulillahi billahi te te tey bi ñu bi ñu contacté gars yi nga xam ne dañoo dañoo war bokk ci yëpp coupe du monde bi man mi con dañ maa contacté mais wax ñoom lu leer naññ dama ni leen man c'est dégg li may liggéey mooy damay wax ak ki nga xam ne mooy mooy ndey mbi ligi laay waxal mais intermédiaire du ma yóbbu ñu laaj ma sa passeport boo defar ko passeport bi ma leen man sa passeport defaruma ko parce que la moo moom mooy balaa waxee passeport day nekk loo xam day nekk ay conditions yu leer naññ xam nga parce que dem dem dem dem naa yóbbu nañ di di di yow man damay ñaan li may ñaan ni mën naa ci la ci àdduna dama ko dama ko xam kon nag du ma asal sama bopp man nawetaat boobu ma fi équipe nationale boobu ma fi xam nga ba askan wi ñi barki Serigne Modou Moustapha ci rajo laay waxee ñii ñaan nawetaan ci de ci ñi ñii naan nawetaan ci bi amul ko amul ko ko ma xanaa nga fay ñàkk maa fay. soo payee mu liggéeyal la mais équipe nationale day woote dañ am na ñuy contacter ñoo xam ne dañuy mais mujj ki football da war a samp sa bopp. Mhm. da war a samp sa bopp. Mhm. parce que samp sa bopp mooy samp sa bopp ba kenn mën ca dara nga mën a tekki mën a dugal mën a am bi ñaari soo nga jógoon tey ñu daan dem tey am problème ay tolof tolof lu ko waral ñàkk sama bopp ñàpp sa amee mbir làmb tamit ñoom benn lañ parce que looy liggéey yaa xam yaa xam da ngay journaliste nga yaa xam jaarekat nga yaa xam jour nga yaa xam lu ma tudd àdduna rek da nga sàmm sa bopp parce que mooy lay jariñ parce que boo sàmm sa bopp doo mën a jariñu il faut nga sàmm sa bopp a jariñu mais boo sàmm sa bopp doo mën a jariñu moo tax man lépp lu ma yeb ci àdduna maam day nekk li man ak lu ma xam li ma xam nag man ko fekk ba jàppale la. ndax mën nañoo jàpp ni samp dafa laale ak bayre waaw xam nga samp lépp la rek boo ne samp doomu aadama Euh, mooy lépp la Dakar nag euh, mën a maj daa bay coole bari saf na équipe dangam fekk dañuy xamuñ sax dañuy sampe samp dafa am secret booy di sànq alul sampe diw ñëw nga damay football dama bëgg football dama bëgg dama bëgg football bëgg am euh, mbër laa commerçant la nangam la mais la muy liggéey ji mu ci taw am xaalis rek loolu mooy samp samp moo lex mooy samp da ngay am toogaay ba kenn du ma liggéey ba dal sa kaw moo samp am saas doomu aadama ci ndaw ak ci xale kon nag képp ku ne may dégg na ngeen samp seen bopp da ngeen ñaanlu seen yaram pour ngeen am jàmm parce jamono ji mën a may daa bëri coow bari mais nit ñi ñu kenn weer ci benn fan da ngay dem rek gis bi en la san la kort wala wala ngay dem rek nit si en nit nit xoolal neexul rek mu des sa wërsëg wala nga am jabar ji baax ànd ak moom ñu daal yàq sa diggante wala nga nekk ndaw ne si koñ bi man la sa mën a mënul ñu gàllankoor la nga tawat kon nag ndaw yi nañ ñaanul sëñ Ndiassé ba xam ci samp euh, également da ngay dégg parfois nit ki ne la euh, da ngaa mosoon dem ci benn sëriñ mu jox la sangat goo xamante ne àndul ak say rawaan hmm. ko baaxul hmm. ba xam ci samp hmm. euh, nit waruloon mën a nekk di samp far mu tëjaale la waaw noonu xam nga Dakar moo bëri uh-huh. ñu bëri da ngay bis da ngay bis da ngay dem ci sëriñ ñëpp faj yóbbu sa aajo pour mu sangal nga dem nga tëju am na parce que lam lay jox xamu ko uh-huh. <laughs> ah mais damay ne tey jii oto bii oto bii boo ndawal te mu jàngu man mënoo man man mënoo ko daa am rek laas am am am nooy defee am nooy tey jii booy togg añ wala day añ da ba koy togg da koy jàng tey jii tey jii li ba da nga koy jàng loo jàng doo doo doo sëriñam kon donc am na ñoo xam yaa ngi dem ci sëriñ am sa problème dem sëriñ a na yaa ngi am yaa ngi bëgg jigéen dem ci bëgg jigéen bu ko tàkk nga dem ci sëriñ bi ñaanal la diggante bi gën a am problème du jeex nga wala ngay sangatu nga di jox ko sangatu ngay sangu gën nga dem ci mu jox sunguf ngasa nga gën a tëju parce que xam na ne yow xamul lu mu jox parce que bëri na gën a wasu soor xaax cooy soñjaan sumb kàdd guy xam nga ma am olom moo am rek dañoo bëri te bu ak la muy jëriñ la bu dee na koy jëndee ak na koy daggee na nga koy xamee mais boo xamul reen xamoo garab looy ñaani doyee kon ñëpp ngi dem sëriñ di ñaanlu dem sëriñ bi gën a a na. samp bi na tamit am na samp moo dafa am bii samp la ah. mais samp tamit ci biir jalang yi image yi. mooy bëy ku bëgg am xaalis bëgg am bëgg réussir ci football ak ci mbiru alal ak mbir àdduna pour ñëpp mën laa bëgg danga indi bëy ñu samp la wala nga indi set ginaar xonq ma samp la nga am toogaay na nga xam ne ñëpp dañu lay bëgg nga mën a am dara loolu mooy samp bi nga xam ne mooy tuuri la da ngay am loo neexal mu nekk nga xam moom ni lu dagan la nekkul nekk ay sacrifice parce que ay Sénégal la du sacrifice ñun ay jullit lañ ay taalibe ay seex la ñoo seexal si màggal Tuubaa lañ suus ni seexal tax ñu mbooloo barki man dama sant yàlla de màggal Tuuba la ma si sama sëñ sëriñ seexal jëbbal ma ay nit te dox ma ko doxee dama ko waxee barke sëñ Modou Moussa Fall sëñ Seex Mbooj Tuuba moo ma seexal ci màggal gi boole ma ak ay du ma toog fenn di ko wax du ma neexoon du ma neexoon yéen doo yem ci loolu kese mais ñaan gi askan wi jàppale moo xam ne la képp ku bëgg am xéewal bëgg am ouverture bëgg am tekki bëgg réviser bëgg ibbeeku ñëw ma samp la nga loolu dugg yomb la loolu mooy alal alal alal mooy loolu dugg mu yomb la rek foo leen bëgg rek moo la may da ngay samp sa bopp da ngay wut set ginaar wala nga wut ginaar la loolu dugg mu yomb a liggéey jàpp la parce que man mais samp moom boo ñëwee samp la nga la parce que samp di samp samp samp daa façon te man samp ma yor ma da wàllu alal ci wàllu xéwal ci wàllu yokkute ci wàllu nit bëgg parce que bu la aadama awee bëggee la dugg moo am ko mais bu fekkee nit ñi bëgg ñu man sama kër wala nga yónnee xaalis sa mbokk ñu taxaw ma jënd bëy samp la image image noonu ak loo bëgg soppale ci loolu yàlla eh, ba si topp rek mooy ginaar boobu ginaar tamit jàpp góor ak jigéen dama si jàpp nit dama si liggéey lu bari dama ci fay sàcc dama ci liggéey jàpp doomu aadama bi ci tamit yàq samp dafa garaaw mbiru jaay dama ciy mooy ki ndaw gi bëgg ma dama bëgg a tekki bëgg a réussir njaax dimbali ma kooku laa yàkkamti ki ñëw ni ma dama bëgg dimbali ma jàppale ma kooku laa yàkkamti kooku bu ñëwee ma jàppale di dimbali ko ci kàttanu yàlla parce que dama ne samp nit dafa yomb parce que di daw nga da ngaa war a am toogaay dafa boole mbiru tuur mbiru jàng dafa am solo ak mbiru sunguf yi sunguf yi ko xam ko xam sunguf yi man ko dag ma ko jot ñu sagal ibbee koo xool sa bopp sunguf yi garab yi nga sangu ci ibbee bopp barke sëñ Tuubaa Mbàkke parce que garab yi yàlla nañ mosul woon ba jëy def mën ngaa dem si garab taat garab saw ko toj ba dama ne garab yi dafa garaaw lii xam bu ñuul ak lii ak tuur ak jalañ gi ma la wax sànq mooy xam-xamu cosaan xamoo pël yeeg firdo yeeg lépp Sénégal am na fi fu ñu Tuubaa tëdd alaaj maa tëdd fa bu ko tëdd fa kon nag ñun nañ sant yàlla xam li ñu am xam li ñu xam mooy lan xam la man nag du ma liggéey ci intermédiaire du ma liggéey ci loo xam parce que lépp lu ma liggéey dama koy xam moo tax may man képp ku may contact da nga may woo directement ma liggéey ak soo directement du ma liggéey ak yow moo man képp koo xam ne da ngaa ñëw bëgg liggéey ak man rek da nga may woo taxal ma liggéey yow suñu am mu ma ñàkk fay dama ànd ak gars yi ànd ñoom yagar yi mais dama ne équipe nationale Sénégal war naa mën a sori mais nit ñi ne seet mas fubal ak loolu ñu ànd il faut nga teral sëriñ si neexal leen a sedd problème ma dañuy tànn tale gi tànn nag mooy di lay mooy lar parce que xamuñu ñi mën ak ñi mënul te ku yóbbu da nga ko ku yóbbu da ko teral parce que ñaan yombul ñaam ñàkk a koo fay kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax daal képp bëgg am xaay bëgg am xëy bëgg a ma maa ngi nii ci àll bi Thiès bi ngeen seet si ma fekk ma fii sama dëkk xam nga ma ñëw fii sama dëkk san dëkk dëkku baay sama dëkku maam sama dëkk lépp kon nag maa leen sant baax di leen gërëm di xam daal mbiru jalang mbiru tuur mbiru samp képp ku bëgg loolu jàpp nit mbir yo bayre yokkute parce que nit lépp looy liggéey at a bayre doo dem parce que bayre bi moo tax nga ouverture da ngay sangatu bayre am ouverture wala tey ji cat jàpp la lu du lu du mu yàqu cat jàpp oto bés nga jël mu yàqu cat jàpp la nga am place foo liggéey da dem nga mën lool mën koo gën ay ñëpp mais foofu kenn du la jël nga ne cat day jàpp nga nekk téer mën mën sa métier mais fenn cat dalay jàpp nga am ay kilifa xam ay ay responsable mais mu ñaa jëriñ ca jàpp la nga nekk kilifa goo xam ne yow ñëpp day ji kilifa nga yow foo directeur yow directeur ngay doon foo dem dafa am ñaari fan ñu dàq la kon dama ne la nit ñi nag il faut ñu ñaanlu pour sangatu pour seen yaram maa deñ def ay sarax képp ku ñaanluwul ki waaw question wala ñoon de am na solo lool euh, Aline parce que la question am solo mooy da nga ma fekk dëkk bi fekk ma ci àll bi mu garab garab gi ñu tiim mooy sumb garab gi ñu tiim mooy guy guy nag képp ko xam-xam ne naa naa faj rab guy mën naa mën naa xànc xànc yi ba nga ci xëcc dagg ci xànc yi yéegi doomu aadama guy képp ko xam ne xam ne ma nga ci daj dit guy day yàq lay defar guy day yàq lay defar parce que liggéey bon guy ko daj guy ko daj ko daj parce que yaa ngi fekk guy gi ay nen ak ay toj fi ay ay ay pont def ay dàll ak moo la may xeex yàgg na am ci réew mi am na ñu da ngay dem ci guy fekk la ñu daaj ñu daaj ci seen tur ci ci benn ci euh, ñu daa koy def euh, dàll wala ñu daaj seen tur isa dégg def ko ci euh, ci euh, euh, ci kii ci nen lu ne rek kon nag guy dafa nekk loo xam te ni moom mën naa yàq mën naa defar parce que guy ñaari ay ñaari xam laan doon mais garab yi gis nga ñuy gis nga garab yi ñu ñu roofalante garab yi dañoo bokk dëkk pare reen reen jaxasoo garab gi mooy sump day dox ci bàyyi ci wàllu bay dañu la sump gu sax ci kaw xorondom day faj dañu la sump gu sax ci kaw xorondom xorondom mooy foo xam te day am day am day am suuf su bari am ay melentaan ñu dem ak dem dem ak dikk ñu ne loolu wàllu mbiru bari lay dox ci bari lay dox bari yokkute ñu ne nag euh, guy boo ñëwee ba ci guy goo xamante ni dafa dafa dem ba taqaloog sump ñu la guy googu boo degee ci leen bi am loo ci liggéey man na samp mais man tamit toj liggéey ñu la mbiru bàyyi rek kii bu tey boo jëlee xas si xas mi nay xas mi nga xas ko am loo ko boolee nga sangoo ko mbir yokkute la ñu la nag euh, boo xoolee ci kaw xam nga xam ci kaw boo laalee ci kaw dalay jam parce que boo xoolee ci kaw sump gi sump gi dafa am yoo xamante ni maanaam euh, dalay jam yooyu nag boo ci daggee fe ñaar fukk takk ko def ko benn say ñi may wax xam nga jën jënd nag waa jënd mooy nga ko takk ak poqe nga am garab goo am na xam day am na garab boo ko ci defee nga sangoo ko waaw képp ku la liggéey képp ku la liggéey ko si kawam boo ko suulee pare da parce que mbiru kii mooy sump day sump moom ñëpp am ne bàyyee la ak karaange mais nag euh, ci suuf la muy liggéey ak kaw bokkul reen bi ak garab gi bokkul de li gars yi jaawale reen ak garab dafa bokkul de reen bi ci suuf daam lu muy liggéey garab yi si ko am lu muy liggéey. lan ngay woowee garab ci kaw. gi mooy li si liy meññ ci kaw xob yeeg yooyu. ba nga ko togg mën ngaa am na fa yeneen tawat yoo xam ne ay man mën naa topp ay faj ay soppis ak ay yooyu dama koy am askan wi comme reen sump dafa bay da koy faj mais su ma laajee may soppis comme ñi saw seen naq di xaw a métteeg yooyu boo ko baxalee da ko naan man man da muy muy muy saw mi deñ kon may la uh, sump dafa nekk loo xam te ni lu doy la. bi ñu suuf ren bi ci suuf boo gasee da ngay gas gi jël lem lem ko jël lem nga dagg ko weer ko moom boobu nga xas ko boo xasee ñu la boo koy sangoo ñëpp dañu lay bëgg duñu bañ mooy sump gii ñu toog ñu la nga ñëw ci ñaari garab yoo xam dañoo ruufalante nga taxaw fa sangoo ci leget mhm. lu wut am ko sekk na loolu dañu la nga ñëw ba si garab gi nga taxaw ci digg garab gi digg bi diggante diggante diggante man maa ngi wax de net lay waxee mhm. boo ñëwee ba si garabu garabu garabu guy ak garab goo xam ne ni garabu sump la nga daaw ci digg bi mais day fekk ne garab yi ñaari garab ñaari garab dañoo jàppaloo roofaloo nga bëgg yëpp bëgg la dégg la boo sangoo fii ci kàttanu yàlla ñëpp bëgg la fop force kenn sañ bañ dafa dafa dafa sunguf la noo sunguf la ak ay jat yooyu def sekkee la boo xam da koy def uh-huh. loolu da nga loo jàngul doo doo nekk sëriñam uh-huh. àll bii dama la garab gu ne mën naa ngeer gi ñu romb naataan ci ngeer daa am leget goo daa am leget gooy jël def ci garab yi def ci lem sangoo ko boo ko sangut dugg Dakar yi nga xam ne sangoo garab damay dama koy dama dama garab dama koy gas jënd ma ko ci marché damay dem ama ciy sonn gas ko jënd ko liggéey ko joxe moo tax may la ñaan yombul ñaan dafa jafe yaay ngi yaa garab koko yi gis garabu kàdd yi xam nga yaa ngi gis garabu loora yi. garab koko moom mën na dara ci. garab koko day mën dara dara ñaan ah, garab koko day ñaan day mën du du garab la ah, garab koko.